danaa am suñu doom joo xam ne si suñu rakk di suñu taalibe di taalibe suñu Modou Kara Sylla yaakaarul may daaru yaakaarul may sëñ Tuubaa dëkk si fii di daan dooleem yor ay soxnaam yor ñaari soxna ak fukki doom ak juróom am amul lu ma juróom fukki at duwaañ yi dàq ko ba mu dugg fii ci dëkk Sëriñ Tuubaa bi gis nga bunt ko sëñ bi gis nga ko sëñ sëñ baa nga ne ko bu doon ko jumaa jàng yi ji ji ji ji jullee ñu dàq ko ba ci bunt ko sëriñ bi rey ko reyeen wu ñaaw waaw fa mu bépp metti na leen ndax li ko reyee mooy am xar sax boo ko yoon di ko ba rey ko war nga ko suturaal waaye bi ñu ko reyee ñoom daañu pare dañ koo xëcc dugal ko ci fecc ko fee takk oto ba yóbbu nga xam ne si soxna si nga xam si moo nekkoon ci koñ bi moo mujj mu xol bu mu muñ ko mënatu muñ mu la ko jël ab mbalaan ñu andi ko jox ko benn pa doon ko ëpp nekkati ki ñu ëpp dee na ba yàgg ñu mu sonn ko fa kon loolee loolu naqari la ah naqari bi nag lim li naqari naqari naqari naqari ñoo ngi dellu santaat Sëriñ Tuubaa di santaat borom Daaru Musi ndax taalibe Sëriñ Tuubaa lan yaakaar Sëriñ Tuubaa gàddaay ñëw fii kii nag sàccut fi nut doon daan daan dooleem di dina aw ñaqam ak njabootam koñ ba mu dëkk ñëpp xam nañ ne moom jàmbaar daanu na ndax koñ bépp moo leen di gàddeel guddi ci ab sàcc dafa dugg kon loola senegal gépp lañ koy seere lii ñu ko def nag ñun ñi xam si famille bi sant saar ak ñu sant Guèye ak ñu sant Mbacke ñëpp naqari na leen kon ñoo koy ñaawlu ñoo ngi koy jooy waaye ndigal rek la ñuy béyee noonu ay taalibe la taalibe moom ndigal rek lay béyee noonu kay sëñ mooy suñu pelant Cheikh Mountakha mi nga moom dëkk bi moom Touba mooy suñu pelant lu mu la ci sant rek loolu lépp lu mu ci dig loolu bu ne woon bu leen ko soxla doon sëñ bu ñu bu Kara Sylla mooy doo néew bu nu sànni ko ca mbedd ba kon kenn du kon ndigal la ni wéy ay taalibe ndigal rek la